Euh, dalal kër gu bees gi nga xam ne moom mooy Daara Koki TV ko defee depuis boobu ba léegi ñu nekkoon fi di def euh, ay plateau ko defee ci loolu la des rek waaye bii ñu dalal ñi nga xam ne euh, association bi nga xam ne presque mën nañoo wax ne li fi sot yëpp li tax ndaje mi am yëpp parce que ñoom ñoo ne ci gannaaw rawatina nag li nga xam ne dafa bokk ci ñoom te ñu koy daloo bees muy Daara Koki TV ko defee ñoom lañ fi dalal ci teewaayu secretaire général bi nga xam ne moom moo ko jiitee di. professeur Massamba Diop ak euh, sunu papa suñu oustaz al oustaz Abdou Khader Diak ak euh, docteur Mame Cheikh Lo euh, aussi oustaz Cheikh Niang ak Bachir Diop oustaz Bachir ak oustaz Bachir Diop incha allahu rabbi am na ak oustaz Baye Modou Kébé macha allah bu ko defee rek ëpp nañ nii waaye comme ñëpp mënuñoo ndaw ñu def ñu jël ñooñu rek bu ko defee ñu seq ñoom benn waxtaan mu ndaw Euh, professeur euh, Daara Koki TV judd na tey dalal studio bu bees lan mooy sa impression ci loolu yow mi nga xam ne yaa jiite association bi nga xam ne moom moo waral lii yëpp. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki euh, téléspectateurs yi ñu ngi leen di seet ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam ñu ngi lay gërëm bu baax a baax sëriñ Cheikh ci lii nga xam ne si ni moom nga ñu laaj di dalal bi aussi. Euh, di nuyu sama nattangoo yi nga xam ne sine ñoom laa fi toogal ci plateau bi euh, fii nga xam ne gan la goo xam ne sine bu mbees la euh, mu tombee nag ndaje mu mag mi nga xam ne si ne moom nga tudd léegi quarante deuxième édition ci rencontre annuelle bi nga xam ne moom lañuy def fii ci daaray Koki ngir solidariser ak daara ji waaye dajaleel ko lépp loo xam ne si ne mooy ndimbalu jullit yi jóge ci biir Sénégal yépp ak ci bitim réew ñu indil ko ko Euh, ren nag dafa nekk euh, édition spéciale boo xam ne si ne moom lañuy defal ndax euh, lii nga xam ne moom lañuy daloo muy kër gi hmm. dafa nekk nekkoon mébét mu rëy rëy ci mboole seen képp koo xam ne mooy membre ci mbootaay gi hmm. waaye nekkoon mébét lu rëy rëy ci sëriñ bi ci boppam ca tamit dana nekk loo xam ne si ne dana am lu mu indi ci liggéeyu mbootaay gi waaye dana am lu mu indi ci tamit ci euh, taxawaay bi nga xam ne moom la am ci daaray kokki euh, communication dafa am nekk vole bu mag a mag ci liggéeyu mbootaay gi hmm. ci communication ci jamono ji ñu toll nii dañuy wax ne loo bëgg mu mu mu jàll wala boog loo bëgg nit ñi xam ko euh, war ngaa jëfandikoo communication hmm. comme nag lépp dañ koy jaay léegi communication mooy jàllale lépp boo amee lu toll ne alquranul karim am lu toll ne daaray kokki eh, nga xam ne si ne à travers àdduna ñëpp eh, ñi ngi koy dégg ñi ko déggul am na ñoo xam ne si ne xam nañ ko ñu ngi fiy ñëw am na ñu ñëwul eh, loolu lépp nag réputation boobu nga xam ne si ne depuis 1939 bi ñu ko taxawaleeg léegi laaj na nag léegi ñu jéggi beneen jéego jëm ca kanam ci wàllu communication mooy xamal jullit gën leen a xamal ñuy gis nag ñu di gis ñi nga xam ne si ne ñoo ñëw aussi bu ñëwee euh, gisal seen bopp bu ñu demee mën a nettali loolu mooy jubluwaay bi euh, mbootaay gi nag doon ci liggéey boobu ba tey dénku ko benn euh, commission commission bu ama am solo ci liggéeyu mbootaay gi muy commission communication mm. jiital ko suñu mbokk suñu xarit Cheikh Abdou Khadir Seck mm. ak yéen ñi nga xam ne si ne yéenay liggéey moom ci commission boobu mu def ci liggéey bu rëy rëy rëy ba tax tey ku fi ñëw da gis ne studio bi Euh, amul lenn lu muy ñee euh, studio yi nga xam ne si ne moom lañu xam ci euh, ci monde de communication. télévision yi nga xam ne si ne moom moo nekk ci àdduna bi lu mel nii lañ fay lañ fay gis moom lañ fay taxawal. Hmm. kon nag am nañ mbégte mu rëy. moo hmm. xam ne si ne wax yàlla amuñu xamuñu app bi. Hmm. mën nañu wax dara ci loolu rek waaye li nga xam ne moom la ñuy yëg mënuñu ko jaaxal ci suñu mbégte suñu kontaante ndax dafa nekk. devis boo xam ne si ne moom la ñu yoroon depuis tey nag mu réalisé wu nekk lu lu lu feeñ lu lu ñu làmb di daj kon loolu dañ koy sant suñu borom tabaaraka wa la waaye di ci sant tamit euh, sëriñ bi ci boppam ndax moom mooy ki nga xam ne moom mën nañoo wax ne euh, moo jël en charge lépp looy loo xam ne si ne euh, studio bi soxla woon na ko xaaru ci woon sax mbootaay bi Euh, bu ñu soxlaa dara rek yéen techniciens yi ngeen soxlaa lu ngeen mën a soxla rek ndeysaan moom mooy ki nga xam ne si ne moo cee jiitu kon nag ñu koy sant bu baax moom tamit di ko gërëm di ko ñaanal yàlla encore yàlla gën ko dëgëral euh, ba liggéey bi nga xam ne moom la euh, yanu ñu ànd kook moom mu yàgg lool lool lool lool lool waaye lépp ànd ak ngërëmal suñu borom kon daal tey daal mbégte la ñu yëpp Cheikh euh, rëy na lool studio bi daal euh, daloo bi ñu koy daloo tey soir dana ko tudd euh, le 23 décembre 2000 2022 date la boo xam ne si ne dana dana dana des ci archive yi nga xam ne si ne moom la mbootaay gi am moom la mm. daaree kokki am mm. macha allah kon xam naa day ñëw ci al oustaz Abdou Khadir Diack moom tamit mu nekk ku ràññeeku lool waaye itam comme ni ko docteur waxee mbégte bi ñu am ci euh, li nga xam ne gan la ci dara ji nga xam ne ni mu ko waxee ndajeem bu daan ñëw coono lañ ci am ci fexe ba nu ñuy def ba jàlle information yi te yàlla def mu toll fii bu kenn jàlle ñun tamit ñu jéem a jàlle mu nekk moyen boo xam ne yokk ñeex ci cere ji yaakaar na euh, est-ce sentiment boobu nga am comme bi oustaz am bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala Cheikh euh, ñoo ngi lay nuyu di nuyu sama secretaire général Massamba Diop di nuyu suñu naataango yi ma toogandoon ci ci plateau bi waaye dañuy njëkkee wax daal mooy ñu ngi sant yàlla bu baax ndax lii daa rey ko ki yàgg na di def ay jéego lii benn la ci benn la ci jéego yu bari yoo xam ne daaray Koki séqi na ko jëm ci kanam mm. ndax dañ toll ci jamono boo xam ni jamono communication la communication nekk volet bu am solo comme ni ko secretaire général waxe euh, di sant euh, ki nga xam ne mooy sama turandoo di Abdul Qadir Seck mm. ak yéen ñi ànd ak moom ci liggéey bi mm. ndax wax dëgg yàlla am na ay pas yu bari yoo xam ne def ngeen ko ci wàllu communication bi ñu leen ko dénkee ak léegi mm. euh, ndax daaray Koki alalu jullit ñi la jullit ñëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew bari na lool ñu ko xam waaye bari na ñoo xam ne aussi xamuñu ko kon lii di studio bi ak euh, daaray Koki TV bi dana tax ñi ko xamul woon ñu xam ko ndax seen alal la nit loo moom danga ko war a xam euh, kon day participer ci li nga xam ne mooy médiatiser wala xamle daaray kokki xamle alquran gën ci xiirtal nit ñi waaye day wane ni it daara mu ngi dox hmm. ndax lii wax dëgg yàlla lu bees la ci mbirum daara tey daara war na ko passé sax hmm. man li may ñaan mooy ñu dem ba am sunu télévision comme ni ko alaaji as ñaane bu mel ni Al Jazeera nga xam ni du yem ci sama Sénégal mais àdduna bi yëpp koy xam hmm. te war nañ àgg foofu incha allah te danañ fa àgg euh, loolu lañ leen di ñaanal lii daal mbégte la mu rëy rëy moo xam ni euh, bi ñu duggee dañu def ñu studio bi daf ñu impressionné wax dëgg yàlla ndax dayu mel ni yu <laughs> ñu nekk ci télévision yu mag yooyu. lool loolu ah. loolu la lay jox. waaw ndax am amuñu télévision yi amuñu lu ëpp lii. kon nag lii ndam la ndamal daara la. waaye ndamal daara euh, daara yi kokki la. li leen di ñaanal moo di ne ñu fexe ba ñu mun a jëm kanam. bu ñu yem fii waaye nañu tegaat yeneen jéego. yoo xam ne dana tax fi ñu bëgg yóbbu daara ji niveau bi ñu ko mën a bëgg yóbbu mu àgg fa te loolu communication bi def ci am solo lool lool lool lool lool. moo tax mbégte la mënuñu wax lu ëpp bi nga xam ni secrétaire général wax na ko en tout ñoo ngi leen di encourager di ñaanaat bu ñu fi ñëwaatee déwén ak jàmm ñu fekk ñu am sunu fréquence wala ñu fekk ñu am sunu télévision boo xam ni télévision daaray kokki lay doon boo xam ni télévision alquran lay doon dañ dem ba tolloog télévision yi nga xam ne mooy yi nekk bitim réew di nga xam ne alquran kese lañ fay jàng ak ay programme mu diine ndax dafa bokk ci liy yar jullit ñi ndax dañu toll jamono boo xam ni valeurs yi dafa yàqu jikko yi dafa yàqu te lii liñ fiy jàngale ak liñ fi wax ak liñ fiy waxtaane ak liñ fiy communiquer di ko wax loolu bokk na ci liy defaraat jikko yi kon nag volet bu am xam nga ne daara jàng la ak yar yar bi nag lii def ci bokk njàngale maa ngi ci waaye yar baa ngi ci te mooy de communication dafa nekk loo xam ne mooy bu efficace la pour jàngale ak pour yar te njàngale mu yaatu lay doon ak yar bu yaatu lay doon nga xam ne dootul yem rek ci biir daara ji waaye àdduna bépp nga yar réew mi yëpp nga yar kon nag lii ñu ngi leen ci encouragé di ñaan yàlla it mu jëm ci kanam di ñaanal yàlla sëñ bi nga xam ne moom moo am xalaat bi wala moom moo leen di gunge ci mbir mi it yàlla gën koo kàttan gën ko dooleel ba nga xam ne pàcc yi ñu yi muy sumb yëpp te lépp di jëmee ci daara ci kanam yàlla taxawoo ko ci yàlla jàppale ko ci loolu daal laa amoon ci pour euh, ci première intervention bi ah. lu may lu may yokk ci li nga xam ne secretaire général wax na ko ma sàmm jëpp mm. di leen macha allah oustaz loolu kàddu yi leer na vraiment am na solo léegi xam naa dañuy jëwal oustaz Cheikh Niang moom tamit mu daal di kii aussi euh, moom li ñu koy laaj rek xanaa dafay jëm ci li Cheikh Ahmad Sahir loolu daan wax di ñaan ni daan ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala koo ki nekk xeeteelu kaay mujj jamono léegi kàddu googu bu ñu koy méngale ak lii nga xam ne moom la daloo muy ci wàllu communication ci volo boobu lan ngeen ci mën a wax comme li mu doon wax xeeteelu kaay mujj jamono bu ñu demee ba daara kooki yaakaar naa bu ma juumul ah man de gisaguma daara ju am télévision waaw gisaguma ko mën naa am nag mu am waaye daara kooku mu am na télévision. dana am lépp incha allah incha allah <laughs> leneen lu télévision. <laughs> micro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 yaatal kër gi ba liñ ci séentu sax man Jazeera ak France 24 la ñuy wax damay xalaat ne sax euh, yàlla mën nañoo def sax ñu weesu foofu euh, li koy argumenté mooy euh, télévision yi gën a mag yi nga xam ne dañuy tasaare njàngalem lislaam bidaaye bi nga xam ne Daara Koki bi am na ko xëy na ñoom amuñ ko woon mm-hmm. maanaam amoon nañ début boo xam ne gënoon naa néew doole ci début bi ñu am nii donc kon bu ñëwee ñun tàmbalee ci euh, sànq rek muy dugg si maa ngi koy wax maanaam macha allah euh, caméra yi ñuy gis ñun ñuy faral di dem léeg-léeg ci yenn rédaction yi xam nañ ne ay caméra yoo xam ne euh, haut gamme la hmm. maanaam de nouvelle génération donc kon loolu luy gën a dalal xel na te xam naa ko Koki lu jomb lii sax lu ëpp lii sax jomb ko hmm. waaw lu ëpp lii sax jomb ko loolu nag li ko waral mooy ci lay dugg ci salaaj bi hmm. ci eh, sëñ mat saxiir mi ne daara ji daf ko bëggoon mu nekk xettalukaayu mujjantalu jamono hmm. eh, ndax télévision bi ni mu toll daara ji ni mu toll jëmmi ki ko jëmmal la maanaam jëmm ji moo toll noonu sànq ci ngoon rek maa ngi koy wax ci hmm. eh, cérémonie dédicace bi ma ne sëñ Mat Saxir Lo dafa nekk euh, un boo xam ne multidimensionnel la multidimensionnel ci nit mooy loolu bëriwul liñ koy gis ci ay siècle léeg-léeg gis ko ci benn siècle waaye du répété wu mm. sëñ Mat Saxir dafa bokk ci yàlla baaxee lu mel noonu mm. maanaam kenn nit koo xam ne benn kàddoom ay junni junni nit dañ ciy nittu mm. benn jëmmam maanaam ay junni junni nit di ci feeñ mooy lan maanaam da ngay gis euh, moom laa jàkkaarloog docteur Mame Cheikh Lo toog ci université di jàngale maanaam ngay gis jëmm sëñ ma saxir ci moom nga gis alaaji as toog ci place di liggéey di jàngale ngay gis jëmm sëñ ma saxir di feeñ ci moom defe naa euh, émission bi ñu fi mujj seetaan euh, sunu waajur Seydina Diop saa Seydina Diop mi ngi koy nettali ci góor gi fi ñëwoon doon jaay nag wi naan ko juróom-ñetti kii laa koy jaayee mu fay ko fukki junne ñett ba mu paree lam leen ci teftal damay bañ di guddal hmm. waaye loolu euh, grandeur boobu mu am loolu commerçant yi dañ koy jàng ci moom hmm. euh, Oustaz Ibrahima Lo bu taxawee ci minbar di xutba ngay gis jëmmi sëñ mat saxiir ci moom hmm. loolu loolu sunu borom daf koy def ci ay ay ay ay nitam di ko def ci ay boroom xam-xam du ci ñëpp nag parce que man Cheikh Niang mii di wax su ma génnee Cheikh Niang pare naa keneen mënumaa nuru waaye da nga gis nit koo xam ne maanaam ay nit ñu wuute ci ay ci ay euh, domaine kenn ku nekk di am looy jël ci moom loolu yàlla moo koy baaxee nit te baaxee na ko Sëriñ Ahmad Saxiir Lo liñ naan nag daara ji xettalukaayu mujjantal jamono ku fi jaar jàng fi jóge fi xam nga ne moos lu wér la parce que xettalukaayu mujj jamono du caagi ne rek da nga fiy jaar rek xettali googu nekk ci yow déedéet mën ngaa jaar ci loxo yi ki fi jaar tey boo xoolee danañ dem ba jamono euh, ci kanam képp koo xam ne jaaroo ci loxo sëñ mat saxiir di nga jaar ci loxo ku jaar ci jikku wala ku jaar ci loxo sëñ mat saxiir loolu ci façon xettalukaay mujjantal jamono loolu nag nekkul rek ci jàng ak yar même ci wàllu économie ak lépp boo xoolee tey économie réew mi li ko téye hmm. tey ji ay maanaam euh, ay piliers yoo xam ne yaru sëñ mat saxir lañ am hmm. mu ngi mel na sëñ bi fi toogoon léegi alaaji as hmm. tey li muy li muy gàddu ci économie réew mi hmm. alaaji abdou aziz silla euh, sëriñ buub tey amul ci ko ci wàllu commerce am ñoo xam ne ay universitaire lañ ñi ma doon tudd léegi oustaz maam cheikh ahmad moxtar loo mu doon dédicacé boo demee euh, euh, rahmatullah alayhi kii ndaw abdul wahab ndaw ak ñeneen ak ñeneen kon boo xoolee domaine bu ne rek da ngay gis ne maanaam daaray kokki génnee na ci ñoo xam ne ña ngay xettali fañ féete mooy lam doon wax ne damay bëgg fii boo fi jógee la ngay yëngu nga nekk fa tànneef hmm. tey boo nekkee général jóge daaray kokki hmm. da nekk ci général yi gën ci général yi hmm. boo nekkee commerçant nekk commerçant bi gën ci commerçant yi donc loolu buy law maanaam muy mujj ah xettalukaay mu jëttal jamono mais damay bañ mu dégg ko maanaam dégg bu gàtt woo na ne jàpp na ku jaar daaree kokki rek hmm. xettal googu agsi na ci yow man ngaa bañ a xam sax fu daara ji féetee hmm. dina agsi ci yow kon yàlla nañu ko yàlla fayal la ci guddee <laughs> kër wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar ñu ngi sant ma euh, technicien yi liggéey ci daara kokki TV yépp hmm. di ci jiital beral nuyoo nag maanaam euh, sunu xarit Cheikh Abdou Khadir Seck wax dëgg yàlla ku ambitieux la Euh, kenn ku nekk ci ñun. maanaam ñi nga xam ne ñoo doon génération génération ak moom. tey boo gisee liggéey bi muy def ci daara ji wax dëgg yàlla da ngay xam ne nelawoon fekkewu ko. jotoon fekkewu ko te nag travail moom moom lu ko liggéey rek gis. te wax dëgg yàlla lii moom. ku ko gis xam ne sëñ Seexuna yéen a ngi ciy deg ay coono yu mette métte métte yal yàlla taxaw kër gi. ba daaray Koki TV nekk maanaam. boo xam ne lépp ma daaneel rek bu jël naa loolu nag <laughs> macha allah may waxee xaal léeg-léeg tamit mbir boo ci nekkee mm. am ci yëg-yëg yu yaatu mm. da ngay wax rek mm. doo doo am foo kii la comme te sëñ mat saxir wax naa ko sànq baxrun laa saaxila lahu euh, booy wax ci moom da ngay wax ba sonn rek bañ dëgg micro bi waaye doo pare ndax dañ doon jàng ci durée di mu ñuy wax ne wannaasu alfun minhum kawaaxidin wa waaxidun kal alf sëñ ma saxe dama bokk ci ñu mel noonu donc kon moo tax sànq maa ngi wax euh, di euh, profité ci hmm. minbar bi di ñaan si livre bi nga xam ne ñu ngi ko doon dédicacé sànq hmm. muy docteur Ahmad Mokhtar Lo bi hmm. mu doon def ñu jël expérience su di Lamine ñas nga xam ne da daan def léeg-léeg ñëpp duñu làkk arab ñëpp duñ làkk français waaye livre bi daf koy jël def ko ay titre d'émission <laughs> buntu par buntu ñu koy waxtaanee ci làkk yi nit ñi dégg nga xam ne dëggantaan nit ñi ku jàngul sax ba toll fenn fi di nga xam kan moo doon sëñ Mor Sall ah, loolu daal maa ngi koy ñaan maanaam Daara Koki TV ñu boole loon seen programme salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakatuh jërëjëf oustaz ma xam naa dañuy jëm oustaz al oustaz docteur eh, mu tombeeg jamono ji nga xam ne eh, thème bi mu ngi jëm ci euh, won ginnaaw alquran karim tey mu am beneen chaîne boo xam ne judd na moom nekk au service du Saint Coran au service alquran coïncidence boobu am noo ko mën a jàngatee auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i waa këram ak i saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain ñu ngi jël nuyoo bu sell nuyoo boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci yàlla di ko euh, jébbal képp koo xam ne mi ngi dégg suñu kàddu à travers ci seen bii nga xam ne ñu ngi ko tijj tey di Daara Koki TV njëkk loolu nag ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoom lañ seqal plateau bi ku mel ne sunu sëriñ ak sunu cheikh Euh, secretaire général Oustaz Massamba Diop ak sunu sëriñ euh, inspecteur Oustaz Abdou Khadir Diak ak sunu sëriñ ku mel ne Oustaz Cheikh Niang ak ku mel ne euh, Oustaz na Baye Mout Kebe ak Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xam ne moom moo nekk ci micro central bi ñu ngi nuyu ñëpp rek ak képp koo xam ne mu ngi dégg ci seen bi di ñaan borom bi tabaraka wa Euh, ubbi bii nga xam ne moom leen ubbi seen bi mu barkeel ko ba law ba lépp loo xamante ne si rek ñaan nañ ko fi yàlla na borom bi tabaraka wa taala nangu ñaan yooyu noonu fi may sos sama kàddu rek mooy fii sunu ñi tedd ñi daanale ndax euh, tey wax dëgg yàlla ku fi dugg tey sa xol dana sedd lool te danga xam ne sunu borom subhanahu wa képp koo xam ne danga nal ab naalam ba noppi ànd ak lixlaas bu sell incha allah day yàgg rek waaye dina ñëw dina la fay loolu mooy li am fii nii kon lépp rek liggéeyu sëñ Massakhir la boo xam ne yàlla da koo jaarale ci moom ndax jëmm la yoo xam ne euh, boo ñëwee ci liggéeyam bii ci kokki nga gis ay ay ay ay liggéey yoo xamante ne si jaar na fi depuis mu nekkoon fi ak ñi nekkoon ci ginnaawam da ngay gis ne Cheikh am Massakhir nekk na koo xam ne ku yàlla préparé woon la ndax lépp loo xam ne daan na ko wax rek xanaa kay ku gudd fan waaye ku gudd fan moom lépp da nga ko fekkee waaw kon jëmm la joo xam ne li may gis ci moom rek benn aaya bu yàlla wax ci ak benn bayit boo xam ne abu nawaas wax na ko yàlla dafa wax ci alquran ne inna ibrahima kaana umma waaw inna ibrahima kaana umma kaana imaaman nga xam ne dafa dajale woon lépp sëñ masaxir man ci aay boobu dama ko si xool lu lu bëree bëree bëri moo tax lépp loo xam ne yàlla defal na ko tey jii la abu nawaas waxoon rek laysa alallahi bi mustankirin an yajmaa al aalama fi waahidin suñu boroom mooy mooy doxale noonu ay mbiram lépp loo xamante ne si da koy jël lu nit ñi di soxla mu yombal ko jaarale ko sottal ko ci benn jëmm kon lii buñ si yeggee nii ba daale ko ki taxawal lu mel nii loolu dafa nekk loo xam ne du mën a santaate yàlla la ndax kat euh, bu nuy sant yàlla rek yàlla dañu gën a yi kon nañ koy sant bu baax ci xew loo nga xam ne mooy ñuy defal fi mu tàmbalee bi mu wàcc jibril di ko ënni ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sonnee gi mu ko sonnee woon wëlbatiku jàngalaat ko saxaaba yi saxaaba yi wëlbatiku jàngalaat ko taariixoona yi taariixoona yi tasaare al alquran ba àgg ci ñi nga xamante ne si ñoom lañ tuddee alquraau saba wal quraau ashara nga xam ne yitte bi ñu defoon ci alquran alquran jooju di law di law di ñëw ba dugg ci Afrique gis nga Sénégal tey bu ñu wax alquran mënoo see génne Sénégal te boo ñëwee Sénégal di wax alquran mënoo see génne ko loolu lépp rek tawfiq la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala la mu waxoon ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun day gën a dëggu rek chaque jour watt googu mooy watt nag euh, alxifdu fi sudur wal xifdu fi sudur maanaam fexe na watt ko ci ay dënn ayatun bayinat fi sudur lazina utul ilm ay xale yu ndaw yoo xamante ni suñu borom tàggan na xam na seen dënn def si ci am alquran te loolu boo ñëwee kooki euh, mooy xayru shahidin ala zalik naka noonu tamit watt na ko ci ak mbind tey fii nii bëri na ay daar yoo xam ne ñu ngi ci biir senegal moo xam tuuba ba Ndar ba faneen a faneen boo demee ñoom dañuy boole ñaar yëpp mokkal alquran ci dënd ba noppi mokkal ci am mbind loolu lépp rek day tegtal la yàlla wax day gën a dëggal la yàlla waxoon ne xam innaa nahnu nazzalna dikra wa innaa lahu lahaafizuun kon nag bu ñu demee ba nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala bokk na ci lim jàppandal julli ñi mooy fexe ba alquran jii nii ñi koy jëfe ba noppi di ko mokkal waaye am na ci leneen loo xamante ne si gën a gën a gën a mën a yombal loolu mm. comme ku mel ne boo ñëwee Kokki nga ñëw lu mel ne télé télévision bi am fi mm. loolu bokk ne li nga xam ne day tasxiir alquran di ko gën a mm. saxal fii ndax kat yaa ngi wane produit Kokki waaye tamit yaa ngi wane alquran ndax ñi fi nekk ci ay kaan bëri na lool te ñooñu rek incha allahu taala bu ñuy ñëw ci plateau yi mel nii ñu leen di enregistré loolu day gën a tax rek alquran dafay gën a sax te loolu lu jar mën a sant yàlla la te ñuy ñaan yàlla borom bi tabaaraka mu gën ñoo defal tawfiq ci loolu te am nañ njort ne incha allah chaîne bi loolu moo ko tax a jóg palaato yooyu nga xam ne ci al alquran rek lay wax ak ci feeñal euh, jëfi alquran surtout nag daara yu ndax nag dafa toll foo xamante ne si daara kokki moom moo xam wax nañ ko waxuñu ko moom amay fépp waaye lii day gën a dolli xorom si suuf day gën a xam nu ko nu ko day gën a sàppale rek kon daal sant yàlla bu baax a baax ci ci ci loolu. Mm-hmm. di jégalu bu baax a baax ci kàddu gi. di ñaan borom bi te war la mu barkeel seen bi. barkeel ñi nga xam ne ñoom ñoo ko taxaw tamit ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jaar yëpp. Mm-hmm. ak ñi ñëwat ñu ñëwagul ak ñëpp rek. yàlla na yàlla def mu nekk seen boo xam ne kon ni ko suñu papa waxee bàyyi as. Mm-hmm. Ah, wax ñu sax ay jazira ak vingt vingt quatre waaye da koy weesu. te am nañ ci yaakaar. am nañ yaakaar ak jot bu rafet ci loolu. salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah waaw oustaz da nga ne doyloon na kàddu yi ñu ciy jël voilà incha allah nee na doyloo la kàddu yu fi jot a rot léegi xam naa balaa laataa ñu tëj rek ñëwaat ndax ku ne xam na ne association bi moo fi def li waaye tamit ci association am na benn membre bu nekk ci biir boo xam ne yàlla defee tey li sotti ci la bokk wala loo kii muy suñu papa Abdou Aziz Sylla bu ko defee tamit xam naa euh, ay kàddu yoo xam ne dangeen ko sànni ci lii ndax liggéey bi aussi euh, loxoom mu ngi ci ba tax mu àgg fii ma loxoom mu ngi ci xanaa kay dañuy wax moom mooy tàmbali ba mooy fin bi mm. Euh, képp ku def liggéey mel nii ku ci def euh, nekk membre ci euh, association bi wala nga génnee kokki dafay mel ne ñëpp nga ko defal soldaaru daaray kokki dañoo tasaaroo fépp ci biir Sénégal ku nekk fa nga nekk yaa ngi am loo fay def yéene yi Cheikh seen Naar lu da koy faral di wax day wax yéene yi benn la waaye mën-mën yi mën na wuti loolu yàlla xam na ne mooy li am tariku mm-hmm. yéene yëpp benn mm-hmm. li ñu yéene mooy euh, gëm gi ñu gëm ne li leen daaray kokki defal ab bor la buñ mënta fay mm-hmm. loolu loolu c'est déjà mooy tàmbali bi léegi nag mu des suñu borom bi nga xam ne si ne mooy kattanal mooy wu defal ay wuute ci nit ñi ci seen i am-am seen i kattan seen moom nag moo euh, wuuteel kattan yooyu boo defee kattan yooyu ku ci nekk fa nga mëne fa nga mëne rek def ko ca yàlla tax ci wóor nañu ne loolu mooy mooy li mooy li am li li nga xam ne si ne moo bon daal mooy taxaw ne mënuma ku nekk am na loo man ca daara ji nag alquran nag xam nga ne xeebul xeebul benn man-man benn man-man xeebu ko li bon li mu ban li mu bañ daal mooy ku ñàkk a def donc kon ku yaafus ci lii xam ngeen ni euh, kër gu mel nii taxawal ko euh, sor sori na lool ak yaafus sori nag yaa fuus ca si Amath Sakhir ci jamonoom doon na wax ne ëllëg si sibbir yéen ñii yéen ay jóg yéen a fiy ñëwaat yor daara ci mm. booba ñu nekk ay tut tànki xamuñu woon wax boobu lan lay wund mm. bi ñu màggee ba dem ba ba màgg nag ci lañ xam dëggantaan ne loola mooy lii dëggu mooy réaliser wu ah, chaque jour mm. waa daara ji rek ñuy ñëw yoraat daara ji moo xam ci wàllu mën-mën boobu ma wax léegi moo xam ci wàllu taxaw moo xam ci wàllu dem ak dikk moo xam ci wàllu jéebaane moo xam ci wàllu communication bi donc kon wuti wuñu ay personne étrangères ñu ñëw di ñu defal loolu tey doomu daara ji ñoo taxaw fépp ci biir Sénégal di liggéeyal daara ji kon xanaa wax boobu ñëw na donc suñu borom tabaaraka wa taala waxu waxu nit nitu yàlla euh, boo looy gën a dund rek di ko gën a gis te man maa ngi am yaqin que ne ci kanam hmm. danañ gën a gis yeneen ak yeneen ci daara ju tedd ji ndax loo xam ne si ne dañ ko fondé mm. ci ngir yàlla mm. ah muy dox ci ngir yàlla mm. di dem ci ngir yàlla yaakaar naa li muy am lépp dana ko am ci ngir yàlla kon euh, ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di di di di waxaat ñëpp nañ jàpp ci liggéey bi euh, ci nañu ma ne aussi euh, taxaw leen yéen ñi nga xam ne si ne yéen yéen a dox suñu diggante ak ak micro yi ak nit ñi parce nit ñi tamit nag damay faral di wax ne Euh, léeg-léeg ñàkk xam moo leen yóbbee yu bare bari mm-hmm. mais tant que yaa ngi leen di présenté sa li nga yor ma sax loolu wax na ko nee na mi mel ne marchandise rek mm-hmm. marchandise mooy jaay mm-hmm. nee bu fekkente ne ki nga xam ne si ne ñëw ne yaa ngi koy présenté li nga yor muy leer muy baax muy ngay jaayee lu yomb nee na da lay daal di jublu léegi noonu rek laa def man sama secret loolu rek la maanaam damaa yor damaa yor daara di jàngale njàngale moo xam ne si jàpp naa ne ci anam gu rafet laa koy defee di ko def ngir yàlla nu ma mën a def nit ñi wuyu si ma parce que nit ñi tamit bëgguñu lu dul lu baax kon daal jërëjëf macha allah euh, mooy li nga doon wax rek ma koy firndeel man sama papa dafa ma mos a wax ne ma bu amee suuf koo xam ne lu ma mos wax avant ma faatu teg naa ko sama wët si Ahmad Sahir loola mu ne ma mu ne ma ñoom jamono ji ñu fiy nekk euh, xam nga xale bu daan xeexe day sànnante ay xeer yi ñoom ñen ñoom buñ daan xeex neefara boo sànni sax daana gis nee na bu daan sàkket fii ci gannaaw si ama saxiloo ne ko Ibrahima demal jàngi fii yëpp ay étage la doon nee ba mu ñëwee jour ba mu ñëwee gis étage dafa jooy loolu pour firnde li ngeen li ngeen doon wax rek li ngeen doon wax macha allah macha allah xam naa ñu ngi ci euh, mu ngi signal ci waxtu kàddu li ma wax mooy ñu sant yàlla ku yàlla baaxee daal nga jaar ci barab bi mm. war nga sant yàlla bu baax waaye sant say wayjur sant sëñ Ahmad Saxiru ndax wax dëgg yàlla li fi yàlla def ci barke def ko ci ci xéewal nga bokk yow ci ñi ngi ci ñi fa roote bokk ci ñi sant yàlla ku nekk xam nga fi nga jóge nga jóge xam nga ni nga fa jóge woon xam nga ñi nga fa bàyyi xam nga ba nga delloo fi nga leen fekk ak yow fi nga toll kenn ku nekk ñun xam na ko euh, ñu ngi sant it suñu Ahmad Saxiir Lo bu baax ndax lii lépp wallahi waxoon na ko te lépp daf ko ñaanoon yàlla te yàlla nanguloon na ko mm. ñaan naa yàlla ngeen dem ba am lii ñaan naa yàlla daara ji dem ba am lii ñaan yàlla ku fi jógee am lii ku fi jógee am loolu mu doon wax lépp ñaan naa yàlla ñaan naa yàlla mm. lépp teg nañ suñu bët te jàpp naa ne sax des na lu baree bari loo xam ne day ñëw mm. waaye it dongam yooyu mu ñaanaloon ñu dem ba yor daara ji xam mm. ngeen ñun ñëpp xam nañ gis nañ dongo yi mm. li eh, Masamba wax mooy li am mm. daara ji ñëpp ci am yéene li koy firndeel wax naa ko ci benn jataay ci jataay bu mujj bële bu ñuy wax as ndaw as ndaw as ndaw am na lu ma waxoon ma fàttali ko man ma am ci ay jàngat yu bari yu ma ci def. Eh, lépp ñaanu suñu Ahmad Saxiir Lo la 97 1997 dañu ñëw fii ci ziar ndajem daara ji hmm. man ak moom ak Abdou Aziz Jaxate ñu jóge Dakar boobu maa ngi école normal hmm. bi ñu demee euh, ba ndaje mi jeex ñu fekk ko ci kër mason ya di ko tàggu di ñibbi hmm. moom sëñ maxtar mi bañ ko tàggoo bay dem mu daal ni aas mu ne ko labbayka mu ne ko wabtaxi fii ma aataaka allahu daar al axira loolu kàddu googu 1997 la ko ko waxoon ñu daal di génn tàggatoo ñibbi commenteeruñ ci waxuñ ci ba àgg Dakar bi ñu demee ba am ay fan ma ñëw ci boobu ab Abdes Diakhate mu ngi liggéey ak moom mu ne ma waa jàkk nan nga gisee est que bàyyi nga xel kàddu gi sëñ Maxtaar wax aas mu ne ma lu ciy sa xalaat ma ne ko bu ñëwee nga ne ko dañ koo soxla mu ne ma baax na bi mu ñëwee mu wax ko ko mu ne ko ñëw leen bu ngeen ma soxlaa kay ñëw leen bu 18 heures ngeen fekk ma bureau 18 heures ñu fekk muy liggéey mu bàyyi li mu doon liggéey lépp daal di ñu recevoir ci bureau foofu ci parcelle ma ne ko ñun de euh, dañ la soxla woon waaye it jàmm rek la mm. diggante xarit ak xarit mm. diggante doomu ndey ak doomu ndey bëggal sunu bopp ci lu baax loolu lañ la bëggal ma ni ko dafa am kàddu gu la sëñ wax keroog bi ñu koy bi ñu koy tàggu kàddu googu bëggoon ñu waxtaane ko keroog daf ne la wabtaxi fii ma ataaka allahu daar al axira 1997 ma kàddu googu lañ bëggoon nga bàyyi ko xel daara ci xam nañ ni yaa ngi fay def ndax boobu xam nañ ci dara ñun mm-hmm. ñëw ànd ak lu ñëw am na lu mu def boobu fii kër daam Touré ak nu mu fi peinture lépp moom moo ko joxe ñu ne ko xam nañ ni yaa ngi fay def waaye bu ñu soñoon benn boo doon def na ko def fukk ndax xam nañ ni sa yokkute la daara ji ñun xam nañ ni képp ku fa def sa dërëm maanaam da yokk ndax alaaji ma xëre daan nañu fa fekk daan ñu nettali li mu yéene woon a def ci daara ji ak bi mu ñëwee ba commencé daara ji li ko yàlla defal xam ne lii du mbiru caaxaan nga xam ne li mu waroon a def ay cinq millions la ay nangam nangam dem na ba def fii li mu fi def lépp ndax yàlla di ko yokk hmm. ma ne ko nag bu ñu sañoon nag yokk googu mooy yow nga dem ba raw ko hmm. looloo tax ñu wax lépp loo doon def na ko yokk ci daara ma ne ko ci lii ñu lay wax pour firndeel li nga wax hmm. lii ñu lay wax kenn ku nekk ci ñun bu ko amoon da koy def waaw waaye ndem mënuñu ko te yaakaar na yow am na loo ci man moo tax ñu wax la ko ndax da ñun ñu yow lii laa ko wax keroog mu déglu ñu wax ba noppi mu ne ñu Abdou Khadim mu ne ma kenn ëpp ci yéene ci li nga wax mhm. ci lay dellu mhm. moo tax may waxaat lii mhm. mu ne daara ji kenn ëpp ma fa yéene waaye dinaa leen xamal leen gannaaw bi ma leen gërëmee sant leen ci lii ngeen ma ndax lii lii muy wane moo dina dégg ku ma bëgg di ngeen maa bëgg mhm. di ngeen yéene li ngeen maa yéene lu baax mhm. waaye danaa leen xamal lenn dama bokk ci famille bu yaatu macha allah mhm. waaye yàlla nag nag nattooñu ab ñàkk ñépp mën lañ yaakaar ñépp mën lañ yaakaar jamono yooyu famille bi li mu ci liggéeyal woon foofu ci ay kéem rek mat na ëpp na téeméer ñi muy ñi muy liggéeyal rek ak ñi muy dimbali ñi muy taxaw ay mbokkam waxuma laa nag li mu def ci mbokk waaye mu ne loolu moo tax ba li ma yéene def ko ki lépp mënaguma ko waaye kenn ëpp ma fa yéene mm. yàlla di dox jamono di dox jamono di dox ba 2000 2017 maa ngi maa ngi guddal nag mm. waaye histoire la boo xam ne bëgg ñu ñu ñu ñu ñu jàngat ci mm. nga xam lii fu fu sori la jógee mm-hmm. ñaan la dama ne ko moo tax 2017 euh, mooy année bi ñu tuddee sëñ Ahmad Saxiir Lo euh, musaabaqatul Quran bi maam Jaara Ngom mm-hmm. gañe te loolu it moom moo ci dox moo ci wax ak Ablaye Dia ne ko mm-hmm. Alaaji Ahmad Saxiir kenn gënu ko liggéey ci alquran kon képp ku ñu fi tuddee alquran kenn gënu ko cee yey Ablaye Dia di xaritam mu ne kon ren jii moom laa koy tuddee bi mu décidé pour tudde ko bu ñu ne ba balaa euh, final bi mu daal di ñuy woo ab Ablaye Dia dafa bëgg ñëw fi pour wax ko sëñ Maxtaar as woo ñu ni ñu kon ni bëgg ñu tase ji ko ak ñu teeru ci Ablaye Dia ndax dafa war a dem ci daara ji ñu daal di ñëw sëñ bi daal di ñu recevoir ci néeg bi ci biir mm-hmm. néegu sëñ bi mm-hmm. bi mu ñëw bi mu ñëwee ñu recevoir ko as présenté ko sëñ Maxtaar wax ko liggéey bu rëy muy def ma seede ci man li ma xam ci Ablaye Dia mm-hmm. mu jël fa engagement yi mu fa jël moom Ablaye Dia ci daara ji joxe ba xaalis bu bari macha allah ba noppi am lu mu warloo ni weer wu dee dana ko def bi mu noppee as ko sëñ bi ma nit dama bëgg lépp looy defarlu fii ci penku daara ji penku daara ji <laughs> nga sant ma ko man it ma jaamu ci yàlla fii daal lépp lu jëm nii ci penku bi lépp loo fi loo projet mosuro boo fi am man it nga nga sas ma ko bu ko defee eh, sëñ bi baax na noonu ci la ñu ñibbee dañu ñibbee ba ami fan fàlluloo loo woom ñu ni ma dafa am lu sëñ aas waxoon keroog sëñ bi sëñ bi nag moom ma yónn ci yow da wax ko sëñ ni ko daara ji de ay projet am du jeex bari na waaye bi ko gën a ñor fu mu nekk nii mooy résidence su sëñ Ahmad Saxir Lo ndax daara ji day bari gan dafa bari ñu fi ñëw te léeg lekk ab wàccuwaay ab daluwaay dafi tumuranke mm-hmm. loolu daal bokk na ci li gën a ñor sëñ bi ak it école yu arab yu njëkk yi mooy yi fi laaj ma koy defar ñaar yooyu mm-hmm. aussi màggat na te kii na war nañ ko defaraat mm-hmm. ñaar yooyu daal bu mu ci bu ko ci num tuddati na ko na ko na ko jël ni ko sëñ bi daan jox naa ko ko mu ne ma nga wax ko sëñ As ma ne ko fàllu bu ma sañoon nag loolu yow nga wax ko ko directement man ndax ndax xam naa ne danañ ci waxtaan waaye wax ko ko yow ndax comme ci sëñ bi la jógee wax ko ko directement mooy gën a nu mu tuddati sa kàddu moo gën a foor sama kàddu fal ni mu wax nga dëgg mu wax ak moom keroog bi mu ko ko waxee ba noppi asif ma wax ni ma tey mbégte mi ma am kontante bi ma am nangam nangam sëñ bi wax na jël naa résidence bi jël naa résidence bi jël naa résidence bi daane danaa fa yebal architecte mu dem xoolal ma barab ba nattal ma ko te boobu bu muy wax bu muy wax loolu ci penku daara ji la mu jublu woon mooy xabru bi daf ishaara la woon rek ah. waaye yàlla jox na ko loolu ba noppi joxaat jox xabru ba <laughs> macha allah bu ko defee nga xam ni kon mbirum maanaam yéene ji nga doon moom laa doon feddal rek mm-hmm, mm-hmm. maanaam mm-hmm. te it yàlla xam na ni ba koy song wax ci boppam moom. Mhm. jamono ñu jël na ko jël na ko en nu mhm. amul lopp 20 million ci kontam. bu mu ciy def amu ko. mu ni ma bi daraa mi ñëwee ba natt ba noppi mu ni ma daraa mi ñëw na waaye kii ba rek plan ba rek 3 million la. rek waaw te kii ba it àgg na 300 millions mu ne aw ma ko awuma sax 20 millions ci sama compte waaye billaahi danaa ko commencé te dana àgg pas-pas danaa ko commencé te dana àgg incha allah. kon gis nga wóolu yàlla xoolal song loo xam ne yàlla dong nga ci yaakaar kooku fa mu ko jëlee yaakaar kooku ci sëñ Ahmad Saxiir Lo ko xam ne leer na ko ne yàlla du ko bàyyi di ci xoolal engagement yi mu jëloon doom li mu yoroon ni mu diisee xëyul gontuwul amul fenn fu ko xaalis jóge waaye nga jàpp ne yow lii moom danaa leen amul kenn ku mës a delloo sa doom mooy pas-pas boobu ñun ñëpp war nañ ko jëlee ci moom lépp looy def ngir yàlla xamal ne du yow mais yàlla la ba ko commencé amul 20 millions ci kontam yu mu ciy def waaye mu ngi ko commencé octobre mm-hmm. mu ne ma nañ bàyyi ba nañ bàyyi ba gan ñi paase mm-hmm. nañ bàyyi ba nit ñëpp ñibbi mm-hmm. ñu commencé ko jëm déwén ba xam li la ma wax nañ bàyyi ba gan ñi paase ñu commencé ko jëm déwén ba xam ñu ngi ko commencé octobre août ci lañu ñu dal août bi mu jotee ñun ñëpp ci résidence bi la ñu dal ci fukki weer ci loo xam ne trois cent et quelques mille wala ba lu ba lu ko ëpp te amaloo ko woon vingt millions kon ñun lépp lu ñu fas te yàlla tax te ñu ñu te ngir alquran ak gëm alquran wallahi dana àgg bu fekkente ni yéene ba sell kon loolu laa doon laa doon tëjee <laughs> jéggu la ci guddal naa lool waaye man dema ca jàngat lu bare bari moo tax daf ma marqué waaw xam naa dinañ ci 2000 maanaam 1997 ak 2017 vingt ans après hmm. keroog man la jox caabi ma jox ko sëñ Maxtaar bi ma ko joxee ba noppi ma fàttali sëñ Maxtaar kàddu googu mu waxoon. ci 97. Hmm. Hmm. ma ne ko ñu ngi ci dem muy 20 ans après. Hmm. kon tey la wabtaxi bi laa jàpp ne tey jii wabtaxi bi nga ko waxoon dama jàpp ni da ko doon ñaax waaye da ko ñaanal da nga ko doon ñaanal mel lisaanu xaalan boo xam ne yàlla la ko wax. macha allah macha allah <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah kon xam naa. lii duuf ci nag bi xëjandoowul ci cin li te ñu may def boobu siñ bool boobu ba léegi ne waxtu bi ñu tëraloon jeex na incha allah bu ko defee rek ñu daal di yëkkati jotaay bi te di leen wax ne incha allah dinañ ñëwaat ci yeneen plateau gën waxtaanee rawatina lu jëm ci ndaje mi ak yi nga xam ne moom lañ ci joxe incha allah di leen jox rendez-vous boo ci beneen beneen yoon incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah. a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi. ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daarakoki TV la chaîne au service di cinq Coran